jërë ngeen jëf mbokki internet ci ñuy bàyyi xel fu waay mën a ne ci réew mi ba ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay mbokk yi tey ñu ngi fii ci Parcelles Assainies sees si euh, kilifa gi muy Ibou wax dëgg yàlla le grand promoteur euh, tey ñu sees ko ngir waxtaan ak moom ci information bi nga xam ne jëm na démb muy diggante Modou Lo ak Siteu bettu ñu bare bari ci wàllu làmb ndax combat bi mu taxawee wax dëgg yàlla amateur yu bëri bëri bett na leen wala supporter yu bëri bett na leen moo waral ñu ñëw fi ngir waxtaan ak ci nuyu ko bu baax bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet koy suivre. lay fay di wax salaamaaleykum gannaaw bañ sant yàlla ci suñu bi ñu gërëm suñu ñaari waajur. Mhm. bon ñu ngi kontaan baax si interview bi xam nga. ñu mhm. nuyu waa Parcelles Assainies 1 26 xam nga Cité Mixa ñu ngi nuyu waa Tivaouane di nuyu suñu di nuyu Sénégalais yëpp quoi. Mhm. ñu ngi jégalu lu baax ci tardement bi ah. <laughs> <laughs> am na solo euh, démb ñu dégg information bu bees tàq diggante Modou Lo ak Siteu mais laataa may ñëw ci combat bi li may ñëw ci carrière Modou euh, bëri na fi plus de deux combats. Mhm. Euh, mu daan ñaar yi ci plus de deux mois. ñu mu ne nag day day day day day day day def pause ñu bari mu bettu ñu bari nag ñu bari yaakaar ne da ciy bàyyi. mu ñëwaat euh, jël combat démb. laataa mu jël combat waaw noonu la xam nga. Mhm. xam nga Modou dafa dafa enchaîné woon ñaari combat royal yu mag. Mhm. yoo xam ne dafa yàggoon. donc bi mu paree mu ne woon day pour xool fu mu jëm. donc tamit bi mu toogee ba sentir ni war na jël combat après si yàlla dogal mu jël Siteu. Mhm. jël na Siteu waaw. mais dafa mel ni coow euh, avant mu jël Siteu coow dafa amoon. ci ci parce que journaliste ñu doon posé question Modou Lô dafa jël avance kon dafa est que jëlul avance laataa mu jël Siteu. kan. Modou Lo waaw avance kan no no jël woon avance. ok mu jël benn avance jël woon benn avance. Mhm. jël woon di toog di xaar. non non non jël woon benn avance. Modou bu ñu mhm. toogoon daal di noppaliku saafoon teg fan si seeti ñi mu war a seeti xam nga mooy loolu quoi. Mhm. moog Siteu Ibulaay combat boobu noonu dafa bettu ñu bari ah. <laughs> mais combat bi xam nga Sénégal yi daam ñu war a bàyyi. comprendre nga yow nit mënul jël xaalisam investir. Mhm. jël xaalis bu weex tàll jox Siteu jël xaalis bu weex tàll jox Modou Lo nga taxaw naan ay du combat di yàq xam nga am na yoo naa ne naayisul quoi. Mhm. am loo xam ne rafetul lamb dañu war a daw loolu. Mhm. ñaari naataangu mbër bu ñu xasee bu ñu xasee ba waxaale seen combat ba mu taxaw nañ ciy wax lu rafet. comprendre nga moo gën yi ñuy wax ni ay ko du combat du combat mais Siteu Modou Lo du combat pour lan te Modou Lo taxaw ñu day jox ay rakkam chance. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. Modou moo taxaw wax loolu kon Modou bu waxee loolu dem ba ci mu def leneen gars yi dinañ ko ni Modou da nga wax waxeet mais surtout tey daf def loo xamante ni war na dajeeg Modou Lo mm-hmm. surtout bëri na ak Zos bëri na ak Guy gi bëri na ak euh, bëri na ak Papa mais champion yi si lamb bëri na ak la dageer gars yi lu ñu bëgg ci nag léegi ñu wax ci dëgg ah non am na yoo xam ne rafetul quoi promoteur bu xasee ba bu bu xasee ba ba fisalee combat ba joxe avance am nañ ko si jàppale ñaanal ko encouragé ko moo gën yenn wax yi ñuy wax ne ay lii du combat du combat pourquoi du combat combat la. Mhm. combat bu neex la. ok combat bi moo ko jëlal boppam wala yéen staff bi yéen a a déggoo rek ànd ci ak moom. non Modou moom lépp lu muy def da ciy waxtaan ak staff bi da ciy waxtaan ak ñëpp comprendre nga la moom mooy roi des arènes xool na li ko gënal comprendre nga def na ko amul problème. Mhm, mhm. parce que ñu bari na noonu coow digganteem ak Tapha Tine Moustapha ñu bari di coow digganteem ak Reug Reug. Euh, te boo xoolee Moustapha Tine moo raw moo raw site ci wàllu làmb doon coowee mhm. dafa toog amul combat Modou amul combat mais fii ñëpp am combat Tapha am na combat Eumeu am na combat Sa Thiès am na combat mhm. Reug Reug am na combat ñëpp am nañ combat léegi Modou Siteu ñoo fi des yooyu la problème mais ñoom laataa ñu jël combat ñu doon coow seen diggante waaw ah, mais mais boobu Modou a pare mu doon boobu Modou mi ngi doon soog léegi léegi pourquoi mbër yooyu bëggoon bëreeg Modou ok ah, amee dañuy eh, ragal xaar ba pare gan gi bàyyi. wala ah, wala wala yu mel noonu. mën na mais comme que xaar amul ah, ñëpp dem nañ. aussi Modou am na droit jël Siteu Siteu mbër la saay. waaw Siteu champion bu bëri la yëpp. am na loo xam ne rat naajul tax ñu koy wax ci Siteu am na loo xam ne rafetul. Siteu mbër la mbër kaamil la dafa rampe ba egg si fii. bi ñu soog door ku ñu waxoon te dina bëri dem ba bëri roi des arènes doo ko gëm. on te dëgg. dafa mel avantage yëpp ci Siteu la nekkee ya, kon ci wàllu xaalis ci wàllu palmarès ak ci lu bëree bëri ci wàllu carrière non surtout xam nga tey xale bu la joxee chance avantage bi yu bëri si yow la nekk mhm. mooy comme ni nga ko joxe woon Ama Baldé ak Boy Niang rek du dëgg mhm. chance moom buñ la ko joxee comprendre nga ñu bëri xale bi la ñuy favoriser d'accord mais tamit na nga xamante ni Modou Lo tamit comme ni mu ko yàgg waxee rek Modou du ñeexu ñebe quoi waaw ah, du ñeexu ñebe mhm. waaye ki muy mbam bu daa de hmm? mbooloo ba bëri Euh, ku muy bëreel daf koy bàyyi xel ci wàllu ci wàllu ci wàllu mobilisation. no loolu moom bu ko kenn classé ci ay bëri Modou. bu Modou kay boo ko boo bëggee am si moom dara. Mhm. xoolal beneen beneen stratégie bu dul ay mbambak ay ay ay nit ak ay affaire yooyu. bu doon mhm. loolu rek kon ay mbër yu bëri jaar fi yoo xamante ni am nañ ñu si taam. Mhm. est-ce que doopu coow ak combat yi ngeen jógee. muy Ama Baldé ak Boy Niang moom bëru coow la surtout moom bu jógee àdduna day jóg. te comme xam nga. te Modou tey yoon la mu bëri combat mel noonu Modou genre combat yu la bëgg quoi Modou bëggul ay combat yu sedd Modou combat am chaque fois day am show day neex. Mhm. commentaire yi laay la laa lay am na ñu ni bi mu jëlee Siteu wala jël Siteu lu yomb la ci moom wala xëy na dafa bëgg euh, jël Siteu dafa bëgg dafa bëgg lu yomb xëy na moo tax mu jël ko wala du woon yoon mu jël ko xëy na ragal ay ay ñoom rëg-rëg la wala ay ñoom tafaatin. non xam nga xam nga xam nga problème bi mooy. Mhm. Modou des arènes. tey mi ngi def loo xam ni benn mbër mosu koo def ci Sénégal. Mhm. moo nga dem ba tëye couronne bi ñëw di bëreeg say rak. lii chance la sax si booy comprendre nga. Mhm. chance la si booy ñu ñam la mooy gu roi de arènes ak la mooy gu préparé roi des arènes. Mhm. comprendre nga. moo def bëgg ñëpp mos. moo def bëgg ñëpp xam gu bi gu préparé roi des arènes comprendre nga. nga am ci xaalis am ci lépp. loolu yéene Modou la quoi. te te làmb dafa toll foo xam ne dañ ko war ëlbatiwaat mu nekk mu am mu beneen xar xam mu beneen xar kanam mun ñu nekk rek chaque fois ñuy mbër bi mbër bi mbër bi mbër bi pendant mhm, mhm. am ñoo xam ne buñ juddoo ba léegi ci VIP ci kaw mhm. comme yenn combat yi daw rek la ñu xam Balla Gaye Tapha Tine Modou Lo Eumeu Sène Bombardier Bombardier waaw <laughs> foofu rek la ba Bombardier wàcc di joxe di jox di jox chance booy yi Modou Lo di ko def booy ñaa nga ñettee def na ko ci rëg-rëg booy ñaa dañ ko defal Tapha defal na ko defal na Modou defal nag ko. Mhm. tey boo Niang bu wàccee joxul defal ko rëg-rëg. waaw nice na quoi xam li ma la expliqué. Mhm. que ñeneen ak ñeneen Zarko mu ngi nii xool leen ko ah. Mhm. adduna moo demee noonu. waaw mais naka la jàmbaar def ba ba ba ba tëgg boobule combat ndax dañu déggoon ni Siteu dafa signé contrat ci waa Alburax. en tout cas Maxime Bergane génn na démb ba ba ba ba ba dindi lu mel noonu xëy na ci jour boobu la ko la ko mbokk Siteu woo ni ko contrat bi mu deñ ndax euh, combat bi dafay yàgg le 30 juin pour mu xaar ñoon dafay yàgg kon mhm. naka ngeen def ba tëgg boobule combat. waaw xam nga combat bi moom vraiment ñu ngi ci félicité Mansour Ba. président mhm. jàmbare euh, production xam nga. Mhm. vraiment mu nekk benn jeune boo xamante ni tey am na ambition ci làmb bi mu ñëwee yàggul mais vraiment manqué na entre empreinte am quoi. te Mansour bu demee bay tëgg combat roi des arènes vraiment egg na egg na ci sommet bi quoi. xam nga expliqué. donc ñu ngi koy encouragé di ko ñaanal vraiment làmb ji bépp mbébét bu mu si am rek. bépp réussite bu mu bëgg rek yàlla na ko yàlla defal quoi. Mhm. parce que tey ci parcelle aussi ñu ne benn promoteur parcelle moo tëgg combat roi des arènes loolu suñu sagloo quoi. Mhm. mu fi am te bu ñu commencé defalee suñu sagloo ñun ñëpp dañ ci ànd jàppale ko liggéeyale ko si comprendre nga ba ni mu ko bëggee ci communication ci lépp incha allah. Mhm. ñu defal ko ko noonu quoi. vraiment parce que jàmbaar production mooy ñun ñooy moom du dëgg. ñoo ñoo bokk lépp quoi mais na na na gaa ji rafetal bu la bu làmb xasee ba taxaw waxoon naa ko ci bombardier ak franc bu làmb xasee ba taxaw nañuy wax wax bu rafet. Mhm. di encourager ki ko tëgg. mais nit ki mënul jël xaalisam investir ko xamoo fan la ko jëlee ka taxaw fee naan ay du combat di yàq loolu tamit. Mhm. Mhm. am na concurrence boo am ci yéen muy promoteur yi jamono ji fi mu ne mën naa ni euh, du ma wax kan la arrangé yow yaay wax kan la ñan la arrangé ci wàllu mbëri la arrangé wala ci promoteur la arrangé ndax bari na concurrence bu ci am. day am ci lépp nag ah ci showbiz boo ci duggee ci lu bari da cee am concurrence boobu am euh, ci ñan lay arrangé ci wàllu làmb. non surtout milieu business quoi xam nga milieu business mhm. la. kii da bëgg fii kii bëgg fii kii bëgg kële xam nga mais lépp rek na rafet quoi. Mhm. lépp na rafet ñu def ko xam nga ci anam yi mu gën a selle su boobaa du am benn problème quoi ñu bañ ci nekk di ñaawoo di meroo xam nga bu kenn amee chance tëgg daal naka naka sa morom encouragé félicité ko. Mhm. comme comprendre nga. waaw ah. jàppalante quoi mais hmm. pas ma tëgg kii nga mer bàyyi ba ma bàyyi la xam nga. réeroo fii vraiment loolu rafetul quoi. ci ci na la ci sa diggante Gaston production su ma juumul. waaw mais man Gaston production loolu dal na ma mais dañ ko waxtaanee quoi. Hmm. man Makan Meng woo na ma Abdoulahat woo na ma mbër mi Zarko woo na ma comprendre nga am na loo xam ne mënu ma leen ko bañal. ñu hmm. ñoo bokk liggéey bi du dëgg Zarko tamit def si benn geste bu rafet boo xamante ne tey bi ab bi làmb ji taxawee am na si ay ay journaliste yi ko doon laaj mais du si mës a wax. Mhm. comprendre nga. Mhm. Mhm. Makan tey su ma tëggee làmb mën mëni dafa am combat bu mu bëgg fësale entre Zarko ak mais loolu. du ma xañ Zarko du dëgg. loolu dara su ma ko su ma ko ñaan ma may ko ko su ma ko Mor Diouf ma may ko ko su ma ma la ko ko comprendre nga. su ma ko Bandiaye waxoon ma ku ma ko waxoon ma may la loolu du problème. parce loolu ñun la suñu àdduna lépp lu ñu ci def nañ koy waxtaanee xam nga la moo gën a ñaaw Modou Baye Fall tëgg combat. Mhm. di defar promotion am man ma nekk ci suuf fexe ba tëgg mbërëm. Mhm. bu signé contrat te waxuma ko si dara loolu moo ñaaw. waaw loolu moom loolu rafetul quoi. waaw mais dafa mel ni yéen da ngeen a boo ñaa jeexee dafa mel ni dina préparé woon pour dañ ñëw combat Modou Lo yéen ngeen tëggu. waa jàmbaar tëggu ko xam nga dañu ni waaw. borom pigutu mbagg boo gis. Mhm. boo bee xob la magasin fa ne. du dëgg mhm. dëgg la noonu la. Mhm. tey Mansour Ba buy tëgg tamit yéeneem day am ko tëgg roi des arènes. comprendre nga. tey yéeneem boobu moo agsi rek. xam nga di ko si ñaan yàlla defal ko si sutura ba mu agsi si càmm. soobee yàlla. ok am na solo fi may jeexal yow mooy le 6 juillet euh, nekk jour boo xam ne yaa ngi koy waaj fi mu ne muy Dame Sène ak Pambay euh, mhm. euh, Laurent Ndiago mhm. Seck ndaan loolu lañ gisagul comme affiche combat boobu itam naka nga koy paree fi mu ne waaw boobu taxaw na waa muy Dame Sène ak Pambay de mhm. comprendre nga Laurent Ndiago ak Seck ndaan Sentel Junior Petit Z comprendre nga ay jona bi taxaw na moom ak armée bu Mewraan comprendre nga ay combat neex mi ngi taxaw quoi ñi ngi ñi ngi togg ndànk-ndànk bon di waaj rek le 6 la incha allah di ñaan yàlla ñu egg si jàmm bu xam nga waaw vraiment ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj. mu nekk sa troisième journée. waaw waaw ok troisième journée Ibou Laye ci wàllu làmb. Mhm. waaw loolu dana yéeme ah. <laughs> waaw. moo tax moo tax ñu bëgg si am lu neex. lu uh-huh. neex amateur yëpp quoi. Mhm. Mhm. am na solo maa ngi bëgg ci yow bu baax. waaw maa ngi kontaan bu baax. xam nga di nuyu fi ma fekk nii muy garage Modou Baye Fall. xel ko automobile xam nga. di promoteur bu mag bi moom it di préparer Anaconda ak. Boy Sey Anaconda yu neex nag. waaw ay ay Sey jàmbaar. <laughs> Uh-huh. ak kii kiiw internet waaw ay mhm. neex nga fa comprendre mhm. mbay xadaa ak kan mhm. kii mbay xadaa milkuso waaw non ay <laughs> bu bu bu <laughs> bu ak kàcc waaw Mor tamit mi ngi ñëw uh-huh. xam nga di indi Mor Diouf Mor euh, ak Bekaay uh-huh. tamit Mor Jackson euh, bébé bébé bébé bébé euh, ki Lat Dior waaw Camille Kane tamit ñëw di indi euh, bébé Diène bébé Diène Zarko ndeysaan oh. mhm. parcelle daal yàlla fi daal <laughs> jàmm allah <laughs> am na solo kontaan nañ ci jaajëf ok